defe naa wax nañ ko waxati ko l'outil qu'on doit constituer pour que justement euh, l'accès à l'éducation à l'école euh, notamment publique dañu wax lu am solo la donc suñu waxee ne dañu bëgg l'école bi njàng meeg njàngale bi euh, nekk loo xam ne lu lu dëgër la luy jëriñ suñu askan yépp rawatina ndaw yi dañu war a def ba nga xam ne xarala yu bees yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel te ndaw yi sopp ko lool bëgg ko xarala yi nekk loo xam ne daf leen di dëgëral loo xam ne daf leen di yokk xam ak loo xam ne dafay yombal seen njàng defe naa ci loolu moom la ko si def taxaw te boobu ba léegi jóguñu ci ñuy ñaan nag vraiment ñëpp jàpp ci xam ne aussi xarala yi dafa am ay côté yoo xam ne côté yu baax la parce que dafay ubbil xale yi ay bunte pour seen jang gën a ñooñ wante tamit dafa am yeneen yi muy def tamit ci askan bi ak tamit si yi donc ñuy ñaan tamit sensibilisation biñ ci war def ñu def ko ba nga ne yi dañuy ne yi aussi fi muy yegg léeg-léeg ne sax dina yegg ba foofu ndax léegi euh, ñëpp def dina yegg fu sore sore ba Japon Europe ak

du temps Ablaye Wade, mais également en 2015 dans Macky à Johnson, en Corée du Sud. a bi yëpp dañuy def priorité ce qu'on appelle transformation de l'éducation et de l'éducation de qualité. Nous avons d'ici 2030 avec UNESCO, il faut ñu ñu objectif foofu fii vraiment li ma vraiment COSYDEP li ma exposé tey li exposition parce que fukk ak juróom exposant ku nekk am ay et puis surtout exposition yooyu dañu concerné au niveau local euh, dans dans les quartiers dans la banlieue partout au Sénégal ñu nak ñu ñoo presse bi ak COSYDEP ñu def en sorte que Sénégal xam ko Sénégal yi xam ko ñu xam ni Sénégal moom vraiment ñu ngi ci réforme bi.